nii naa ñëpp ba tey corona bi wéy di fës di dox ci askanu sunu gaal fi mu toll ni tembe mën nañ ni am nañ lu toll ci cent huit cas yooyu le cent huit cas nag am na ci neuf yoo xamante ni wér nañu daal wax benn bi wér démb ci àllarba bi ak huit yi nga xamante ni wéroon nañu boo leen boolee muy baa ngi fësale ak di xam leen ni ay wayno sàmm askanu sunu gaal am na treize laa la wax treize cas maa la comme bii mi nga ni loolu na de ci yooyu le treize cas nag bonne nouvelle bi nga xamante ni temps limite nee na am nañ ko benn cas boo xamante ni cas communautaire la la maanaam boo xamante ni dañ la koy wàll te kala ko wàll doo xam fu mu la ko wàllee loolu daal bokkul ci li nga xamante ne am nañ ko démb ci résultat yi ba tey ubbil ubbil mboole seen yéene yi nekk ci askan sunu gaar rawatina ci info nga gis la nga xamante ni moom mooy couvre-feu bi amoon bërki démb laa la wax ak démb nga ne waaye nag bërki demb laa la wax moo ca raw ndax bari na ay jeunes yu génnoon moo xam dañ doon jëndi reer moo xam dañ doon liggéey ba wàcc moo xam lu nu man di yëngatu waaye ñoom dootuñu ko dolli ndax kat gaay yi opération sa xiir daal la ñu wax ma ñëw ni la couvre-feu bii ah li nga xamante ni moom moo ko sponsorisé laa la wax mooy xiiru ma faal ak liif yi laa la wax moo taxit laa la wax démb ci àllarba ji ñu baree bari dolli wuñ ko la tax ma ne la dolli wuñ ko mooy li nga xam ne moom moo génn ci ay jeune ci askan sunu gaal bariwul woon de nga ni ah danoo dof danoo dof ma ni la ba tey couvre-feu boobu yi mën nañ ne mardi moo gën a metti démb mercredi waaye teewul nag sans limite ubbi yéene kaay boo demee foofee nga ne mooy ca sans yi am na gone yoo xamante ni ñoo nga nekk foofee ca Medina ñoom nag lan doon def du leen lu dul amal ab jàmmaarloo ab xeex bu metti bu doy waar ci li nga xam ne mooy couvre-feu bi foofee ca Medina nga ni maa la ko mbii bi ay fële ca Medina laa la wax couvre-feu am na fa waaye couvre-feu bi fépp la am waay na mu amee foofee ca Medina ndaa wuute ak ni mu amee ci yeneen i gox ndax kat foofee ca Medina gone yi dañoo génn di jàmmaarloo ak a jàkkaarloog takk der yi <laughs> nga ni waaye yi gone moom lu ñu a moom la Fall Damel doon def ak Khadija am na ca ñu ca jotoo wax laala la wax wax jëm ci wàllum couvre-feu bi ñenn ña ca joto woote nee na ñu daal askanu sunu gaal dañ leen a war a leeral xamal leen ana lan mooy couvre-feu <laughs> waaye xawma xamul woon waaye ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi di taxawaaloo ko tambaambaaloo ba nu wutli leen dóor leen xiir laala wax ak ay liif ah ñoom de xam nañ ko jëf ji nga xamante ni moom la gendarme yi ak police yi jëf jëm ci ñi nga xam ni ñooy taxawaalu ci mbedd gi am ñu baree bari ñoo xam ne loolee neexu leen laa la wax eh, tëddil nga ni doo tëdd nga ni neexu la bu amee ñu mu neexul am nañu mu neex ndax kat danoo jàpp ni xàcc bu njëkk day dal xëbal bu njëkk laa la wax day dal ew eh way xawma day dalam déedéet waaye xale yi Medina lu ñuy def ci mbedd mi la wax bay xeex ak police yi ñu def banu jëm ba tey waaxu jëm dañuy seeti Sénégal Sénégal ni dañuy góo ba tey wax ci wàllum couvre-feu bi ew eh way couvre-feu bi nag la ca El Hadji Assane Gueye yëkkati laa la wax nee na dóore baaxul si démocratie ew eh way dóore day yàq démocratie moom El Hadji Assane Gueye àndul benn yoon ci li nga xam ne mooy dóor bi nga xam ne gaa ñi doon nañ ko dóore démb am na sax ba tey ca émission bee di li fi xew ca Thiès Info am na ñuy wax ni ñoom bu ñu arrêté boroomu pata dañuy daal di jàll ca la nga xam ni mooy dóor ya wullee wulli ba mu nooy duñ ko laaj wala sax ñu jéem a xam foofu aja jóge ñoom kay xanaa bare noo wulli mbaa ñuy dóore dañ laa war a laaj ana foo jóge waaye yaanaa maar ba tey feelu leen ca Sénégal ñoom nag la ñuy fësal ak di ko xamle mooy kontaan nanu bégg nanu bu baax baax ci li nga xamante ni moom mooy sénégalais yi li ñu ànd ci li nga xam ne mooy couvre-feu bi ñoom ñëpp toog seen biir kër waaye nag lu toog toog ci seeni kër am na ci ñoo xamante ni mënoo teeñu tambaambal mënoo teenu cambal cambali laa la wax dugg ci àll beeg dëkk bi <laughs> waaye duñ ko dolli ña ko jot def dootuñu ko dolli ba tax na waa yaanaa maar di fësal ak di xamle ni ñoom nag la leen matt te naqari leen ca couvre-feu bi mooy dóor wu lii nga xamante ni ñoom soldaar laa la wax ñoom ñi doon amal couvre-feu bi ñi ngi ko doon def ay waay askan bi ba tey ka yëkkatiwaati kàddu wax ci li jëm ci wàllum couvre-feu bi mooy Serigne Abi Mbacke moom nag gis na ni li xew démb laa la wax dafa ñaaw ay Bamba looloo di ay kàddoom de maanaam la xewoon maa ëtub maam Thierno Mbacke borom daaru moom àndul benn yoon ci li nga xam ni mooy li ay gaa ñi doon def nit ñi di dóore moom daal jàpp na ni dóor yi ak wulli li nga xam ne gaa ñi ñu ngi ko doon amal di ko def askan bi loolu moom àndu ci benn yoon naka noonu Sénégal set ni ma faal dameel am na loo xamante ne ëpp nañ centaine de personnes daal ñoo xamante fa nga xam ni moom lañ defoon seenu yoon du fenn fu dul autoroute ba ay wañ ba ngir nag mën a daw waaxu ñibbi balaa vingt heures jot ndax lan ragali liif ah lii fa li ci yéeme te doy ci waar mooy gaañi du nu mën a jàpp yóbbu ca brigade ba ndax kat bu nu bëggee ku nu gis jàpp la dañuy bañ foofa xat loolu nag moom moo waral ku nu gis rek tëddil lañ lay wax waaye bu na laan tëddil lan koy booleel ba tey ci wàllum coronavirus bi ñu waax wuti foofee nga xam ne mooy ca Saint-Louis ca Ndar nag lanu fa Sénégal set indil mooy benn waay boo xamante ne ab laveur la waaw waaw day raxas de raxas ko oto la moom laa la wax dañu koo testé mu positif ëpp law waaye ñama doon raxasal seeni wata fu nu jëm waaye ña doon jàppale ci raxas bi nag héhé waaye nag foofee nga xam ne mooy ca Saint-Louis couvre-feu nga doon jaar ci yoon naa la wax ci talaata bi waay ndaw samba ak démb ci àllarba bi ba tey foofee ca Saint-Louis mboole seen moodu moodu boo xamante ni ñëw nga ne tëpp ca dëkk ba jël nañ la yóbbu la en quarantaine waaye daal laveur bi daal moo tiital ñëpp moo jaaxal ñëpp ndax kat ñamuy raxasal seen oto bari na nga ni maa la ko mbii mi ñu dem ba tey ña nga xamante ne ñoo amal tiit ak njàq rek jaaxle mooy ñi nga xamante ne danoo bëgg a cib dëkk danoo bëgg a jóge cib dëkk waaxu wuti ci beneen dëkk maanaam voyagé ji laa wax tey ji am nañu ci bari bari ñoo xamante ni yéen a mi ngi fësal ak di xam le ni jam ñaajo lañ doxee ba Cees nga la ko mbii mi diggante tëngeej ak Dakar laa la wax Rufisque mooy tëngeej dina leer deux mille cinq cent francs CFA la ko gaañu di passe ba laa wax e na samba diggante Thiès ak Tivaouane ñu ni deux mille cinq cent francs CFA te boobale wata nag na nga xam ni oto bu ndaw lay doon de du doon bu mag ñi ma doon bu mag laa la wax te bu doonee bu ndaw ñaari nit dong ñoo cee dugg ak chauffeur ba nga ni muy ñett e way yomb na ba bi xam le ne am na ci wata boo xamante ni moom daa dem ba Jurbel laa la wax ñu yebbi client yi ñoom ñëpp ew eh, waaye ndaw samba lu mu fay wuti kon daal wàllub dem ak dikk nekkul lu yomb lool ci askanu sunu gaal képp ku ko bëgg di nga génn xaalis laa la wax teg ko ci taabal ji ew eh, waaye ndaw samba foog de ba tey ba tey la nga xamante ni nguur gi tere na ko muy mburu mi nga xam ni doon nañ ko jaaye ci biir bitig yi ah boo moytul ma ngay bëgg a doon saafara su jur jàngoro laa la wax ndax kat boo demee ci boulangerie da ngay seet da ngay gis na nga xam ni noonee la xatee laa la wax nit ñag su mbox ah, la ñuy bañ dajaloo bu ëpp bi la ñuy bañ bu boulangerie yi di xat waaye yow jaaykatu reer yi leen a fàttali ñuy jaay caagi rek soow nag eh waaye ñoom it dañuy xam may ngay laa la wax avant vingt heures kay moom léppay xat te loolu wóorul te ñu dem yooyo bu nu wax wuti bitim réew laa la wax nga dugg Sénégal ñu yóbbu ñu foofee nga xam ne mooy ci Italie ab benn infirmière laa la wax koo xamante ni nee naa la day faj ay waaye fajkat bi ni mu dafa rëy moom ndaw si ci jëmi boppam am na lu toll ci trente quatre ans moom mi ngi doon liggéey ci première ligne de la pandémie de coronavirus moom ci jëmi boppam bu ma la waxee lu mu def da nga naa ma déedéet moom la mu def mooy xaru ay way law xaru yow moom nag la nga xamante ni moom moo ko tax a xaru du lenn lu dul teste bi nu ko testé gis ni moom ndaw si dafa am coronavirus moom nag mu man damaa gore moom nag mu ni man dama am li nga xam ne mooy coronavirus ba ba pare di bàyyi noonu sama bopp laa di dund di ko keneen ak keneen bala ma ko wàll keneen ak keneen naa xaru ay moom ndaw soo si kat li nga xam ne moom moo ko tax a am coronavirus du lenn lu dul faj gi mu doon jéem a faj ñoo xamante ne am nañ coronavirus ay docteurs yi ay docteurs yi ay docteurs yi bi lay yërëm naa leen kay gàcce ma ñoom jar nañoo tàcc de ñu dem waaye ba tey ñu ñëwaat ci couvre-feu bi rek ba tey wax ci ñi nga xamante ni laa la wax danay fekk nit mu taxaw rek ñu commencé wulli di dóor waa bu dee ka ni wulli ku wérut la nag waaye bu dee ka ni wulli dafa demoon defi liggéeyam laa la wax laajte ba pare soo ko dóor moo gën a wóor ñu dem ba tey ànd taxaw xeex coronavirus cofeel pro ni ma lutte contre le coronavirus fexe nu fi covid 19 bi jógee waaye itam xeex ak moom tax ba soxna Aïda Saliou Thioune moom soxna Aïda ginnaaw ba nga xamante ni jël na lu toll ci de francs fa jox ko nguur gi ngir jàppale leen ci li nga xam ni mooy coronavirus bi e eh waye samba ak ay jàmbaar ba tey loolee nga xamante ni moom la doon def yemu jëlaa la wax ma nga wéy di jàppale nguur gi ubbil yéene kaay bi di sans limite chauffeur pro di nga di nga gis fa nga xamante ni foofee la soxla si jaaraat laa la wax ngir jàppale ñi nga xamante ni ñooy askanu sunu gaal gépp gépp bàyyiwul kenn rawatina nag ñi nga xamante ne ñooy néew gi doole laa la wax la mu jël jox ko ña ko yelloo bokk na ci ceeb bu baree bari bokk na ci diwlin gu baree bari bokk na ci suukar su baree bari bokk na ci ba tey soxna Ayda Saliou Thioune daal di jël kafe gu baree bari laa la wax ak meew ak mbiskit ëpp law jagleel ko ñi nga xamante ne ñoo nekk ci village yu Madinatu Salaam ca Mbuur ak itam yenn daara yi ak ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw ba tey ca donya boole na ci li nga xam ne mooy masque ak ay gel mu daal di jël jox ko villageois yi lenn waralu ko lenn sababu ko lu dul moytu lu dul xeex li nga xam ne mooy covid 19 bi te am na ñu ci baree bari ñoo xamante ni mënunoo génn wuti lu nu am mu yóbbul leen ko ew eh ñu dem ka ko feelu di Seydou si Seydou si moom itam foofee ca Ziguinchor moom Seydou Sy di footballeur ko bile diwlin ew eh way ceeb laa la wax ak yeneen don laa la wax la jël jàppale ko waa ah moom itam def na wàllam ci xeex bi de nga ne maa la ko mbii ñu dem tey jii nag coronavirus bi sa Espagne faat na lu toll ci quatre cent quarante trois ëpp low France deux cent trente et un laa ilaha illallah Italie six cent quatre vingt trois morts ñun daal nañu ci dégg doy rek cay fu nu jëm ak bi la corona waaye nag gaañi li nga xamante ni laa la wax mooy solution bi te gën ci man gën ci yow gën ci ñun gën ci yéen du leen lu dul riigu lan toog yi waaw dogal bi nguur gi jël pour ci àndeek moom rek rek képp lum nu wax nu def ko lum nu tere ñu bàyyi ko coronavirus bi mën naa bañ a law ndax kat coronavirus bi fekk wul kenn képp ku mu daal lekk yaa ko fekk kon ngaa ñi restez chez mooy jàmm ji de sëy laatiir bu baaxee rek bësal clavier ñu dem ba subaak jàmm jaakin jëf